باللوح والقلم معبود بقينا بك العظيم ومرضيه الله وبالقرآن وبالتوريد بقينا دعوة Assalamualaikum mbokki talibé mbokk julit yépp yéen ko gisandoo fi ñi ngi fi ci tedd bi di bërëbu sëriñ si di Muxtaar Mbàkke yàlla na suñu borom dolli ay euh, ngërëmam ak ay leeram te taan ci barkeem tey nag euh, dëppook ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru rek gàmmu dëppook 26 euh, euh, octobre 2024 sëñ bi nag ñu koy defal fii tey bisu ñaan fii ci bërëb bi si kër gi bis boo xamante ni def naa ni niñ ko waxee moo ci taam woon ngir ñu ko ci ñaanal kon nag mbokki taalibe yi daje nañ gis ngeen ci bërëb bi jàng arxuraan jàng xasida def ay bernde ñaanale ko sëriñ bu tedd bi Cheikh Sidi Moukhtar nga xamante ni nekkoon na fi sëriñ Touba kon ñu ngi fii ci bërëb bu tedd bi macha allah yàlla na suñu borom nangu ñaan yëpp te taan ci barke sëriñ Mame Mbaye sëriñ Mame Mbaye ya yaa mel ni ñu ngi ci ñaanu sëriñ Sidi Mokhtar gi waaw waaw ñu lay siyaar baax kon gis ngeen sëñ Mame Mbaye taxaw bi mu taxaw ci bërëbu sëriñ Baara bi ak liggéey sëñ Sidi Mokhtar bi moo tax ni mu teewee liggéey bi nii kon sëñ Mame Mbaye ñu ngi la koy siyaare bu baax a baax tey ñaan yàlla suñu borom nangu ñaan yi kon nag mbokki taal bi gis ngeen ko ñu ngi fii ci bërëb bi waaw doon dafa bi ñaan bu baax a baax baax a bu baax faj aajo yëpp maanaam mboolem mbokki taalibe yi ñu ko dégg te mën ko ñëpp ñu ngi ñëw di siyaare si tey ñaan suñu borom gën ko defal tawfiq gën ko doli manam ay ngeenel ak leer ak i ak ndam ak bërëm ak ak ak tawfiq ci serigne bi ñuy ñaan suñu borom taan ci barkeem sëriñ Sidi muxtar kenn duko faté lim def ci yoonu murit wallahi kenn duko faté du murit du tiijaan du julit du kenn rek kenn ko xamanteni ni dina fàtte sëriñ Sidi muxtar mi nga xamanteni manam liggéey na fi liggéey bu reey ci bir yoonu murit yalla suñu borom manam fay ko ko ko uh, way juróomu teddu Cheikh Mamadou Lamine Bara uh, nga xamante ni mooy borom guy mbind rek sëriñ Serigne Mamadou Lamine Baara <laughs> borom guy mbind di waajuram maanaam uh, doon ki nga xamante ni kenn du ko fàtt ci yoonu murid moom it ñu nekk fii ci bërëb bu tedd bii di maanaam uh, uh, fii ci guy mbind gis ngeen jumaa ji moom it ñu ngi koy yeesalaat ci njiital Serigne Moustapha Mbacke xalifa Serigne. Euh, Seydil Mokhtar waaye xalifa Seex Mamadou Lamine Baara yàlla na suñu borom barkeel defal ñu tawfeex ñu ñëpp fàccu ñu aajo barki borom Touba yi képp ku gis liggéey bi rek ak nga dégg reportage bi yàlla na suñu borom faj sa aajo barki borom Touba barke Seex Seydil Mokhtar barki Cheikh Mamadou Lamine Baara barke njabootu borom Touba gu tedd gi yëpp ñu ñaan suñu borom lépp lu ñu naal rek laa ñu ko tàmb ci bismillahi rahmaani rahim te yegg ko ci alhamdulilahi rabbil alamin bokk na ci naal bu tedd bi muy jumaa ci tedd bi barke borom Touba yi something in